am na solo ci nettali bu ñaaw boobu nga wax ci laa lay indilee benn laaj boo xamante ne vraiment jaaxal na ñu bari ci làmb ndax gis nañ ko mel ni suñu papa Bécaye ni mu mel ci làmb ak suñu papa Gaston ni ñu mel ci làmb boo diggee ñuy en tant que kilifa ñuy ñuy weccante kàddu yoo xamante ne séentuwuñ ko woon ci ñoom boo ko gisee ban taxawaay nga ci am. waaw xam nga déjà ñoom li leen boole. question de vision la ku si nekk am na nooy gisee. parce que Père Bécaye wax. ci teraanga ndax dafa jàpp ne làmb la amoon démb moo war a continuer mooy tëgg sa làmb dem fay télé mu wane ko suñu paree site yëpp jël ko reprendre ko ñëpp gis ci seen bopp xam nga loolu teraanga la nit ki nag moom moom terangam su ko neexee def su ko neexee du def Gaston fi mu waxee waxu professionnalisme la wax mooy làmb tollootul fa nga xamante ni ku mu neex nga jël image bi yóbbu jaay te aussi suñ ko jàngatee ba si biir c'est vrai parce que man su ma nee je pour le changement damay ànd ak Gaston si li mu wax. Père Bécaye aussi duñ ko bañal li mu wax ndax moom li mu xam la wax muy teranga ak dox lu rafet ak def lu rafet bañ na ko ba interview am dafa ne du ma wax lu ñaaw du ma def lu ñaaw. Gaston aussi moom li mu wax c'est clair maa moom sama yëf ku mu neex ku mu naqari maa moom sama yëf maa moom pepp maa moom. pepep yaa ngi dégg c'est tout à fait normal moom moo génne xaalisam su tey par exemple 2STV dafa ñëw génne xaalis bu bari jox ko ne ko làmb ji jënd naa ko dans ce cas tey euh, Gaston du génn naan moom maa moom pep maa moom pep mais li mu def pay-per-view ñi nekk di wax day yàq làmb yaa ngi lamb làmb moo toll foofu parce que làmb moo amatul moyen yaa ngi te li may faral di wax rek taal bu taw a tàkk bor bu ne nañ koy jafale PPV fi mu toll nii day dimbali promoteurs yi si pertement yi ñu doon am ñu di ko ñu ñu ñu ñu ko da di ko dabu ci ci PPV bi. waaw ah, mais bi ñu bari nee nañ ñi nga xamante ne ñu ngi nekk ay Kousanaar ay dëkk yoo xamante ne vraiment amul amuñu yenn moyens ci ku ku courant nga bëgg ko kilo connexion muy seetaan lamb ci PPV nee nañ ñu bari nee nañ loolu moo tax ñu ñu ñu jàpp ni bokk na ci lu yàq lamb. waa léegi ku ku ku courant yaa ngi dégg laa daan seetaan du télé télé lu koy doxal a ah pexe gi ñu doon def di seetaan télé war nañoo mën a def pexe boobu ba jënd paas non nañu waxante dëgg da ngay gis tey ñu jógee ba Gàmbi. boo génnee ci dëkk bi rek bi day xawoon. connexion bi biir dëkk bi sax day naqari <laughs> biir dëkk bi sax day naqari waxuma la soo génnee dëkk bi mais c'est-à-dire il faut ngeen comprendre contexte bi mu tombel da ngay xam ne làmb dafa nekk ci crise mm-hmm. promoteurs yi ils son obligés wut tey ay partenaires liggéey ci pay-per-view pour am ci moo ngi mel ne tey da ngay gis gars yi ñuy def ay jeux concours mm-hmm. ay jeux concours mënoon nañ ne ah jeux concours yi ñuy def naan tirage bi nangam wala nangam wala nangam naka la ñuy ñi dëkk ci kosaanaar duñ ci bokk mm-hmm. qu'on se dise la vérité àdduna mooy évoluer àdduna nag suy évoluer nit ñi dañuy ànd ak moom dox dem mm-hmm. bu njëkk làmb tolloon na fa nga xamante ni dañuy ñëw tek ko ci télé yi ñëpp seetaan alhamdulilahi rabbil alamin looloo ñu gënal ñun mais dem nañ ba nag loolu mënta ne promoteur bi mooy génne xaalisam tëgg ñun liñ ko mën a dimbalee mooy ñëw dagg billet wala jënd connexion yaa ngi dégg wala jënd paas seetaan ko su fekkee ne nag wax dëgg ne yàlla loolu dem na ba munut dem man làmb ji déglu naa ko déglu naa ko RFM waaw wala déet teg nañ ko RFM ah ñu muñ rek déglu rajo jar na waxante bu ñaaw en tant que kilifa. ah non loolu xam nga ñoom ñaar la. parce que tey ñaari ñaari kuy yuy mbëkkante man du ma dox seen diggante. papa Gaston sama papa la. papa Bekaay sama papa la. ma fa nga xamante ni waxuma ci làmm mais ci àdduna fu ma leen di ndax ay kilifa ne ñoom ñaar ñëpp mot dañ ma way jur. lu ma leen wax tooñ leen. li ma mën daal mooy ku ci nekk ci ñoom ñaar sa vision nga wax. père Bécaye jàpp na ni 2S ak intérêt waa 2S nekkoon na ci bi làmb ji jeexee ñu teg ko Gaston jàpp na ni intérêt am newul foofu intérêt moo ngi ci moom sit bi mu moom teg ko ba pare te wax wax dëgg neex yàlla neexut a wax mais wax na dëgg nag. Bécaye fi mu waxee mooy intérêt moom moo ngi ci làmb ji bi mu jeexee 2 mën koo teg nit ñi mën ko seetaan ndax dafa am ñuy suivre 2S di am ñuy suivre ba di am ñuy suivre seen émission ñoom. Gaston aussi fi mu waxee mooy balaa keneen di ko teg moom mu teg ko parce que moom itam moo génne xaalisam moo tëgg làmbam donc il faut que nit ñi aussi tey comprendre ne développement tout le temps day impliquer nit ki def génne dara ci poche am def ci. yaa ngi may dégg tey jii ma jox la exemple da ngay gis bon du ma jël sax kii wu jàkka mais damay jël par exemple école bu yàqu ci benn benn dëkk. nit ñi ñëwuñu defar ko état ñëwul defar ko mais waa dëkk ba cotiser defar ko d'accord nga ci waaw wala déet kon donc nañ comprendre aussi ne ñun paas bi ñuy jënd wala connexion bi ñuy jënd mooy suñu participation tey ci développement làmb parce que su fekkoon ne man ba ma taxawee ne état dafa war a woo làmb jox ko budget subventionné ko mu mën a génn ci crise bi mu nekk parce que Covid bi tey soo xoolee euh, dëkk bi amoon na ay problème dañoo génn ñi joxe fii ceeb joxe direction bi lii joxe fii joxe fii pour nit ñi mën a dund mm-hmm. làmb foofu la toll